un calendrier trop trop trop ambitieux. bon ah xam naa dañuy référé wu ci projet bi pour pouvoir. waaw ah, déet mais ambitieux il faut être ambitieux dans la vie xam nga il n'est pas dit que jibi dans un plan ou bien dans un projet que lépp day sotti. lépp waaw mais tu dans des prévisions. Mmh. tu es dans des loo xam ne da nga naan ci lii laa koy teg ci lii laa koy teg ci lii laa koy teg. Mhm. léegi nag au cours de la matérialisation. yi nga xamante ne da nga gis ne peut-être sooxee nañ mais da nga jubbanti. et voilà la jubbanti. mais yi nga xamante ne wóor na ne yii moom boo ko tegee ci axe mu dem mais ñu doxal ko. Hmm. léegi nag mooy li wax rek dafa ñoo xam Sénégal il son ce qu'on appelle le ministère de la parole ñi nga xam ne ñoom moom lañ moom lañ leen jagleel ñooñ nañu leen bàyyi toujours ñu yore coow li mais ñi nga xam ne nag ñoom vraiment ñoom la ñuy jagleel tey ay action ay acte palpable ñoom leen bàyyi ñu def ñu dem réew mi yi ñoom ñoo yëkkati majoritairement pays bi teg ko seeni loxo. teg ko ñi nga xaman ñoo fi nekkoon pendant douze ans te amuñu lenn lu ñu def lu dul jële réew mi ci trois mille milliards de dettes yóbbu ko ba quinze mille milliards de dettes jëlee déficit boo xamante ni fi tey déficit pour presque boo xam ne à quatre pour cent déficit bi yóbbu ko ba dix pour dix pour cent. Mm-hmm. la dette quatre vingt quatre pour cent. par rapport euh, comment euh, au au au waaw ñooñu est-ce que vraiment ils ont voix au chapitre ji bi ñooñu nañ noppi. waruñu wax non nañ noppi. alors non ils n'ont rien à dire franchement xam nga ñooñu xool nañ noppi xam nga gis nga rendez-vous dans cinq ans gis nga dans cinq ans. Hmm. quand le président Diomaye sera en face des Sénégalais su boobaa Sénégalais ci boppam ñoom ñoo koy xaymaal seen bopp mais ñoom qu'il n'aille pas vite en besogne xam ñoom fi ñu toll nii Sénégal dañ leen a xool. dañ leen dañ leen a dañ leen a on a fermé la page de de ces gens là. ah seen mais jibi lu ma bëggoon wax loo xamante ni loolu c'est important. c'est à propos de coalitions. waaw foofu laa bëggoon a tàbbi sax. waaw xam nga jibi coalition yi. Ah. soo xoolee. waaw man cocktail yu grave laa ah. gis. waaw eh, ah. tuuti nga may ma ci photo yi. Euh, les coalitions. boo xoolee coalition yi xam nga dañ ne les principales coalitions c'est d'abord le PASTEF. Mhm. c'est jàmm ak njëriñ mm-hmm. euh, wàllu takku wàllu mm-hmm. ak bu ñoom xalif Sall bi nu mu tuddati sax encore ti sàmm sa kàddu mm-hmm. li ci gën a yéeme ji sàmm sa kàddu moo ngi nii ñii li ci gën a yéeme ji sàmm sa kàddu sàmm sa kàddu pur xalifa Sall Bart voilà Anta Babacar Déthié Bougane Thierno Jibril ah, ñii nag jibi xam ci ñaata département lañu teew. ci Sénégal ñaata. ñii nii ñu am solo ñii ñaata département. 16. Hmm. 16 département sur les 54 16 département fa lañ fa lañ ñii nii seen coow lu bari lépp. ils ne sont que dans 16 départements ñii seen coow lu bari lépp sa ci 16 département lañ nekk. ah bon yàlla. sur les 54 départements ci 16 lañu xam nga ñoom mënuñu ko matale. certains maintenant vont dire que oui ils sont dans le cadre de l' intercoalition waaw d' accord mais boo nekkee ci intercoalition. jibi war na la mën a permettre yow sur cinquante quatre départements yow nga amu ci lul seize. seize kese. pak wàllu bi ngay dégg ñoom Macky Sall ñi am barki démb ñoo jógee ci pouvoir bi ñoom Macky Sall ñii. Mhm. xam nga ñoom ils sont présents sur combien de départements. Yeah. 36. 36. sur 54 départements 36 départements fa lañ teew te ñoom ñoo jógee barki dem ci pouvoir bi. mais mënuñu matal sax dem ci département yi on va encore dire que way ouais, c' est parce que intercoalition boobu ñuy wax man j'ai regard xool naa bu baax ñoom dëkk yu bëri am na yoo xam ne nii ña ngi fay toog di buuxante seen biir taxawu Sénégal ak euh, comment mooy sàmm sa soo xoolee fii Dakar à part Dakar et Rufisque ils ne sont présents ni Kër Massar ni à Guédiawaye ni à Pikine 16 j'ai dit 16 tuuti mais parce que amuñu ay nit ci bi mais amuñu ay nit loolu mooy wax bi il faut que sénégalais yi xam ne ñii coow lu bëri yëpp xool mais c' un géant à la patte d' argile amuñu ay nit seize départements. fa la nekk nee nañu nañu nag euh, ah ñoom ndur nañ lu gëm seen bopp de. waaw mais ji bi ñoom nee naa la ci seize départements la ñu nekk seize départements ça veut dire que tey xool ñoom bu ñu defoon le plein ba le plein le plein plein xool bu ñu defoon le plein ñii mënuñu am plus de trente six députés bu ñu defoon le plein lépp lépp la plein lépp mënuñu am trente six députés plus de trente six mënuñu ko am. ah bon non tamit là où Pastef vise les cent pour cent. ñoom pratiquement il ne vise que 36 pour cent Amadou Ba de moo leen tane parce que Amadou Ba au moins il est présent sur 48 départements sur les sur les 54 Amadou Ba leen tane. donc gars yi temps yi ñu ngi tas rek de. il waaw d'accord mais dama ne waaw mais c'est vrai loolu dinaa ci ñëw. Ah. mais au moins boo xoolee ci fi ñu teew ñoom Amadou Ba au moins sur les 54 départements 48 yi ñoom teew nañ fa. Amadou Ba Amadou Ba. xam nga nag léegi maintenant les gens vont dire c'est dans le cadre de l'intercoalition waa déet ma d'accord mais xam nga loolu inconvénient bi mooy lan ji bi bu fekkente ne tey da nga ne da nga nekk dans un cadre de intercoalition mais yow jàppal ne ñi nga xamante ne ñoom ci list bee la ñuy voté avantage bi ñuy am mooy dafay répercuter ñoom seen quotient électoral sur la liste proportionnelle moo tax ma ne waa sàmm sa kàddu ñoom seen wàllu bopp coow lee fi nekk rek jibi man de ñaanul ma leen xool ñu invalider seen liste déedéet Barth moom moom day dem mais seen liste moom ñaan naa xool liste bi moom des fi et les Sénégalais verront que en réalité ils ne pèsent pas le poids d'un atome pesé wuñu le poids d'un atome électoralement parlant. mais Sine Saalum peut-être nag euh, tane nañ nag ndax. Euh, département yi bu nekkee. Euh, mais nu mais nu ñu tane. 46 46 département. waaw Sine Saalum. nga nga am nga nga nga nga teew 16. waaw 16 xaw ma waaw. mais si yi. non 54 département. mais jàppale leen. 54 département nga teew 16. non attends man maa jaawale wala 46 ou 54. 46 départements avec l'arrivée de Keur Massar. non non les huit départements de la diaspora. ah de la diaspora ah da nga ci boole waa diaspora yi. d'accord parce que fii 46 la les huit ah. départements de la diaspora. Ah, ça fait ça fait ça fait 54. parce qu'ils sont considérés comme des départements. waaw waaw électoralement parlant. ok donc boo leen boolee muy 54. non loolu kon tuuti na. mais 16 laa la wax man non maa ngi jàpp ci 46 départements yi rek. Eh, foog ne Sénégal fi même ñoom ñoom Macky Sall nee naa la. ñoom kon diaspora ba kon amuñu fa dara. ñii au niveau de la diaspora. waaw. Ah. en Europe fenn lañ teew en Afrique fenn lañ teew c'est-à-dire benn département lañ teew en Europe yu bëri yi mu en Europe benn département lañu teew en Afrique benn département lañ teew sa à dire que donc sur l'ensemble de la diaspora six départements ils ne pas présents moo tax seen coow lu bëri lépp tey ba da ngeen leen di laaj rek ñoom ngeen leen yéen lan moo tax yéen vous n'êtes présent que sur seize départements mais ji bi fii ku fi amoon doole tey ku fi am doole département yëpp ngay teew même su fekkee da nga ne dans le cadre d'une intercoalition xool ci fépp ngay teew laa la ñoom ñii mais parce que xam nañu matewu ko coow bu ñu leen doon jël sax individuellement mais ji bi individuellement bu ñu leen doon jël. Ah, tey décortiquer ma leen. individuellement tey bu ñu leen doon jël taxaw pour cent. ah na ñoom ñoo yor Dakar de. Ah, mais non 1 pour cent. yi. président nga xam le score de Diomaye le score de Diomaye ak Guédiawaye moo ëpp ñoom seen score national. le score de Diomaye laa de. Mhm. le score de Diomaye à Guédiawaye moo ëpp le score national de Taxawu Sénégal. Mhm. Anta Babacar qu'est-ce qu'elle pèse. elle est nouvelle sax kooku moo kooku ma naqari ji. nu mu la naqaree parce que sa place n'était pas dans cette coalition. Hmm. wallaay azim. mooy seen jigéen moo nekk deuxième Anta sa place était aux côtés des gens du régime. Hmm, pourquoi. man de su ma ko doon conseil politiquement. dinaa ko wax ne ko foofu la parce que xam nga et les jeunes et les idées qu'elles porte son les mêmes pratiquement que yi nga ne moom la ñoom Diomaye di porter qu'est-ce qu'elle va faire avec des gens yoo xam ne ils son à la retraite politique moom ak Pape Djibril Fall qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'ils font dans cette coalition de gérontocrates ñoo xam ne aujourd'hui mu neex mu naqare ils seront à la retraite politique après le 17 lu ñu fay wut wutuñu fa dara xalifa mi xalifa mi magu démb la. mais du logique politique. ci wàllu politique moom. xool du logique politique du logique idéologique du logique programmatique. kon seen ànd bi intérêt ko law. et surtout le pur encore. quest que le pur fait dans une coalition une intercoalition où il y a Macky Sall qui a co Macky Sall a emprisonné deux de mes amis Massata ak Mamadou Niang. imaginez demain ñu ne. waa PUR ñi ngi taxaw ci au côté de pour pour pour battre campagne qu'est-ce que ça va faire devant les gens. Ouais. alors parle du PUR c'est d'abord l'éthique PUR pour man éthique la d'abord PUR avant muy nekk dara éthique la. ndax ndax ki nga xam ne moo ko jiite. est-ce que du dañoo mer rek mere tamit. parce que non non c'est-à-dire. à mën na ne xool man man jàpp naa ne bu la neexee sax ñu ne bedd nañ Pastef mais tey xam lu ma doon lu ma doon lu ma doon d'accord ñu ne PUR ak sax euh, comment dirais-je Déthié ak ñoom Anta Babacar ñooñu mun nañu ànd mais pas s'allier avec Taxawu Sénégal qui s'est accointé bien sûr avec Macky mais pas s'allier avec Amadou Ba bi nga xam ne yow pendant douze ans moom nga combattre ba pare ñoom ñu jël seen régime jàpp say député tëj leen injustement illégalement léegi yow ban logique politique moo war a tax tey nga ànd ak ñoom man mën nga bañ a ànd ak Pastef parce que ànd ak Pastef c'est pas une nécessité mais le, le PUR aurait pu avoir sa propre coalition dirigée par des gens du PUR te wallaay xamul lu ci gën a métti mooy gis nga coalition bii la fa am ak la fay am ak néew ci ay nit PUR ko fa nar indi ba pare il risque de ne pas en bénéficier PUR a leen ëpp ay nit PUR dina fa indi ay député mais PUR naru ci jariñu parce que PUR n'est pas tête de ba pare aussi nekkuñu deuxième sur la liste ñoom troisième sur la liste lañ nekk c'est un risque pour Cheikh Tidiane Youm le PUR aurait pu analyser ça man jàpp naa ne ñoom bu ñu demaloon seen bopp seen coalition bopp wallaay mën nañoo am ay députés yu bari mais fii ñu dugg. doxul non yàqal dina leen yàqal lu bari alors ci ci ci coalition yi man ma gis euh, Pastef moom mu dem ak bannière boppam euh, waaye bi ñu génnee keroog liste bi donc ma.